نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وتقبل شفاعته من أمته وارفع درجاته صلى الله عليه وآله وسلم إخوة الإيمان أيها المشاهدون الكرام في القناعة عين ماضي تيفي نحييكم بأحسن التحية ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بوك جلتي بوك بوك الله سبحانه وتعالى غناب أه نسانت يا الله جلسي سانغ سانغ محمد صلى الله عليه وآله وسلم ين يا خمني ين يتوب ين تولو سي سن عين ماضي تيبي فتبارك الله دلن جاجف البخ دلن تتقال دلن يانا يا الله تبارك وتعالى يا الله دفلو غنسي نون دفن خيول بجاه طه المصطفى العضناني وآله وصحبه وتجاني بوكي ديال وارد نسوسن يوختان يبو البسبه فتبارك الله يبو البسبه نيوغي تغون سن يلوخو موي ويجر وخمني بومو دين دي نيانال اي اي دومم لين نيانال يالا يالا تكسيون نجوب ndax tamit ñaan mooy gannaay waxoon nañu yeneen yi alayhi salaatu salaam kenn ku nekk mun nañ jaar si la nga xam ne wax na ko si diggante diggante moom ak boroomam mooy ay ñaan ya nga xam ne def na ko di ñaan yàlla di tàllal loxo di toroxlu ngir lan ngir yàlla subhaanahu wa defal defal leen njub defal tamit seen njaboot njub njaboot ja nga xam ne ñoo soq yaani ñoo jokk si ñoom ak njaboot ba nga xam ne njabootu deret la fa tabaarakallah kon yow jur bi bul di deñ di ñaan bul di deñ di toroxlu bul di deñ di sabablu ngir yàlla jubal la jubal tamit njaboot bi fa tabaarakallah waxoon nañ tamit suñu waxtaan bi weesu mooy foog ñu yar xale yi ci seeni langage ci seen tamit ah, xale bi bañ a doon ka nga xam ne mooy rëbbaakoon la di saagawaate di sosalaate foog nga daal di wax ak xale yi maanaam nga daal di intégré la nga xam ne yar ci lu mu gën a rafetee ci waxin ñu koy waxee ñu mu gën a rafetee ci doxalin ñu koy doxalee noonu maal asafu shadid lan lañu gis léegi da ngay gis ka nga xam ne day wax lu amut mooy maanaam ngeen baal ma ci kàddu gi day sos day kàcc day wax lu amut day fen si la yore njabootam ay gis ku taxaw si réseau sociaux yi moo xam téléphone am la yor moo xam ay caméra am la yor di tuumal ay gor rek di sos te si loolu si loolu si loolu la yore loolu la yore waa këram kooku est-ce que dina yar waa këram dina yar njabootam ci wax lu am déedéet du ko mun a def ndax moom si la dëkk si la dund si lay dundal njabootam maa la asafu shadid bëriwaa na tey jii malheureusement tey am na ñu bëri ña nga xam ne li ñu yor seen kër yëpp mooy ci ci ay sos la si lañu dundal seen kër si lañu yóbbu seen yaay màkka ah ma ala asafu shadid waxon nañu suñu waxtaan weesu léeg-léeg sax ñenn ñu ñooy jàngal seeni doom fen yow da ngay gis am ku la seet war a gisante ak yow nga ne ko waxal sama papa nekku fi wala waxal sama yaay nekku fi nekk kàdd yoo xam ne yaa ngi koy jëmbat ci xale bi mais nekkul loo xam ne baax na ci moom déedéet baaxut waaw fa foog ñu bàyyi xel ci loolu bu baax a baax kon tey fu ñu war a sos suñu kàddu mooy def ndànk ndànkawu ci xale yi foog ngeen def ndànk ci xale yi maanaam même boo koy jox dara sax boo koy jàngal boo koy yar daa am noo ko koy joxe mu bañ a nekk loo xam ne da ngay gëddaate wala ngay nekk loo xam ne maanaam ah, da ngay yóbbu xelam yóbbu fitam déedéet yonente bi alayhi salaatu wasalaam moo ñu dàq yaru te moo ñu jàngal naka lañu yoree xam ngeen anas ibnu malik moo ngi màggee ci loxo yonente bi alayhi salaatu te anas daan na foofu yonente bi sallallahu alayhi am soxla ci moom dem di ko woowi bu génnee bu ko ñëwee fekkee anas ci ay moroomam day nuyu moroomam yépp daal di nuyu anas ba pare woo ko ndànk wax ko lu mu koy wax loolu mooy yaru alayhi salaatu salaam kon war nañu mën a jël référence ci ka nga xam ne yàlla subhaanahu wa taala moo ñu jëlloo référence si moom sang bu tedd bi mooy alayhi salaatu salaam yent bi noonu la doon yaree njabootam ñoonu la doon yaree saxaaba yi ridwanullahi anhum kon boo yoree sa doom walla nga yor say jarbaat sa biiru kër foog ngay ndànkawu ci ñoom bi litfi wal liin mais du nekk loo xam da ngay gëddaate ah du ñëw nga daal tàngal déedéet foog ngeen ndànkaw ci xale yi ba li nga bëgg si ñoom nga daal di koy am kon fa tabaarakallaahu yegg lañu fu ñu war a yëkkatee suñu jotaay lépp lu si jub ci borom bi subhaanahu wa la lépp la nga xam ne tamit dëng na ngeen xam na ci matati doomu aadama la إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتم وما توفيقي إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته